artiste yi mhm. ki ñuy dalal tey nag euh, tudd Lamp Fall moom nag bokkoon na ca ñi nga xam ne mhm. doonoon nañ candidat ci premier juillet bi ñu génn mhm. euh, Lamp Fall ngeen amaloon benn assemblée général assemblée général boobu ñu tabaat ci kii di Ngoné Ndour defoon defaat ko pour pour la quatrième fois mu nekk ca boppu Sodaaf yow bés boobu boo ci mënee dellu siwaat naka ngeen dundee woon bés boobu waaw euh, c'est comme les artistes qui vivent l'époque du PS aux élections mmh. puisque actuellement le Sénégal fi mu toll ci démocratie war nañ dépasser ces modes de d'élection caduques d'abord y a y a pas la transparence ak ni artistes yi bare ñu jël lépp def ko benn bureau au niveau de la Sorano c'est pas normal mm-hmm. je pense que pour pour une assemblée générale des artistes la SODAV devait faire tous les moyens pour que ñu décentraliser ko ba artistes yëpp ju joué euh, def seen droit de vote ñu voté puisque on dit assemblée générale de la SODAV deuxièmement la sodave li ma gis mooy dañ ko jàppee benn association de gestion de fonds commun commun boo xamante ne dañ koy def te SODAV c'est la gendarmerie des artistes des arts et des cultures c'est une institution c'est pas une association donc le ministère foofu laay reprocher le ministère de la culture euh, de la jeunesse des sports que parce que man bi njëkkee le nouveau gouvernement là bi njëkkee def seen euh, organisation jël culture jeunesse boole ko moi j'étais pas d'accord mhm. parce que la culture actuellement même les réformes du son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye def na ne euh, am na secrétaire yu ñu nommé pour ñu gérer de la culture mais secrétaire boobu trois minutes la fa def mais tu t'imagines mhm. et là sax n'honore pas les artistes man ba fi may wax ni mbuur laa jógee

on dit des élections libres et démocratiques élections yoo xamante ne boo ñëwee il n'y avait même pas on ne sait même pas combien d'artistes ñoo nekk ci fichier bi les candidats. ñaata ngeen woon candidat. bon man jete dans le collège musique. ok te boo xoolee SODAV dafa am problème. puisque ci biir collège musique normalement on devait avoir plus de représentants cest à il devait avoir une répartition. proportionnel comme à l'Assemblée nationale. nga xamante ni si fekkee musique ñu ëpp lu ñuy déposer lu ñuy dugal comme fond lu ñuy ndam ay nombre donc là-bas on doit avoir plus de représentants wala mais benn lañ ñu jox. Mm. et c'est je félicite Djibi Guissé bi nga xamante ni moom moo gagné sama collège je me suis placé troisième quatrième je pas mais je suis fier de y avoir participé puisque Mbour Petite Côte dafa am benn problème bu fa am ñun. les promoteurs les les gars yi na ci hôtel yi dañu cachet yi mënuñu ko def moins de cent mille francs te lu leen neex la ñuy imposer artistes yi c'est à prendre ou à laisser te loolu état def ci war a jóg li li ñuy def la mooy culture dafa nekk loo xamante ne duñ ko sàgganee lu muy de la culture devait être détaché pas ñu koy def affaire de secrétaire euh, euh, secrétaire mu ñëw beneen bi mooy mode de bi ñu def. c'est-à-dire euh, il pas la transparence vraiment je dis honnêtement parce que moi je suis rasta mhm. mm-hmm. Rastafari je dis la vérité il y avait pas la transparence avant qu'on fasse le dépouillement on sait déjà qui a gagné la mën a demee loolu euh, on a on ils ont pris un huissier de justice mu ñëw et là je ne fais pas pour quitter mais je salue li ñu fa da def parce qu'ils ont mobilisé les sécurités jël ay garde yooyu yëpp ñëw tout ça y était mais mode de scrutin bi c'est c'est pour un pays vraiment démocrate comme le Sénégal war nañ dépasser pour élection de de de la SODAV ñuy def ay genre mode yooyu biñ ñëwee dañu def wàcce rideau bi à la sarane comme ni ñuy wàcce rek nga dugg sa candidat boo ñëwee jël benn bulletin avec plusieurs urnes c'est pas normal loolu mooy xewoon temps PS donc moi je dis que ces élections là on doit revoir revoir cela léegi su ma la déggee nga bëgg a wax ne euh, dañ ko def bande de copinage alors que c'est une institution. là je je laa lay fekk si puisque suñ nee les deux tiers ñooy génn te c'est 36 membres membres 12 ñooy ñu la ñu renouveler c'est pas normal c'est pas démocratique. mais comment ça se fait que SODAV artistes yëpp wax ci participer. mais ñu nekk juste 36 membres c'est parce que le statut SODAV moo caduc moo obsolète dañ ko war a changer. ce n'est plus une association mais c'est une institution et le ministère doit faire tout pour que ñu insta parce que liy défendre ce n'est plus l'affaire des artistes uh-huh. mais de, du monde intellectuel puisque quand on dit une œuvre d'art c'est une œuvre intellectuelle et sànq li ñuy wax Sénégal fi mu toll uh-huh. war nañu jël SODAV gën ko jox gëddëm ministère de la de la culture gën ci bon damay wax jeunesse sport culture parce que man reconnaître parce que gisuma sama bopp. Mhm. ci gouvernement bi ni ñu gérer. Mhm. parce que c'est à eux. et je lance un appel à son excellence monsieur Bassirou et le premier ministre que ñu détaché ko. Mhm. du ministre de la jeunesse du sport et de la culture. mais dafa diis. mais voilà parce que la charge est trop lourde pour elle. ñetti secteur le secrétaire bi mu trois minutes la def dem pour une affaire boo xam c'est une affaire nationale et puis je te dis le Sénégal doit se glorifier puisque je félicite le DG de la SODAV monsieur Bathily en l'occurrence il a formé d'autres SODAV à travers la sous-région mais ñun ñu ne def ay élections yoo c'est vraiment lamentable moi je dis que c'était tout sauf des élections mm-hmm. mais dafa mel ni SODAV yéen seen problème texte yi foog ñu revoir ko et ça fa loolu mooy tâche bi xaar euh, Ngone Ndour PCA bi. je lui lance un dañoo war a def comme li gars yi def euh, revoir les textes puisque c'est y a des règles y a des textes qui war na def mais renouvellement arrêté mënul sax arrêté mandat que mu ngi ci benn circuit boo xamante ni euh, quatre mandats dans une institution comme la SODAV loolu ça fi les gens moom waral coow li yëpp gars yi bëgg a falu mais man waxuma pour waxu nguur mais on a dépassé ce stade puisque. j'ai voyagé j'ai j'ai sorti un album dem naa fii Espagne def mais carte SODAV c'est reconnu partout dans le monde mhm. suñ demee ba atteindre point boobu nag ñun au niveau de des institutions et de nos organisations on doit faire tout pour que yooyu yëpp ñu dépassé ko mhm. Mhm. et l'art c'est un vecteur de développement la culture mën nga ko jaay parce que dans les réformes j'ai waxee dafa ne réforme culturelle mais loolu nga foog ne lan la qu'est-ce que c'est que la culture mm -hmm. c'est pas le fait de chanter de jouer de danser c'est autre chose mhm. et ça peut faire même entrer les devises dans notre pays mhm. parce que je peux exporter ma musique je peux exporter du côté vestimentaire ak lu ne lu ne artistes yi ñu ngi vivre de leur art donc nekk na loo xamante ne euh, je lance encore un appel mhm. au premier ministre si on peut détacher le ministère de la culture à part entière mu gérer les affaires culturelles mhm. des acteurs actuels parce que li lii nii c'est la crise dans la petite côte parce que Mbour laa jógee mhm. les artistes vivent la galère da ngay gis fii artiste bu feebar mënul faj boppam ci Sénégal fi mu toll mhm. balaa ñoo yegg si ci Mbour Petite Côte xam naa dañuy des SODAV bu léegi. Ah. mais yaa ngi wax ne texte yi mooy problème yow en tant que candidat nga woon. lan hmm. nga proposer texte yi. texte yi on doit revoir certains points limitation des mandats à deux loolu dañ ko war a def ba pare répartition proportionnelle juste des collèges puisque collège musique mënuñu défendre il y a combien de musiciens ñu am benn représentant ci ci assemblée générale bi ci PCA bi. Mm-hmm. au plus ñu def ko une répartition puisque am na collège euh, littérature am na collège audiovisuel ak yeneen ak yeneen mais ce que les musiciens font rentrer comme fonds dans les caisses de la SODAV loolu war ñu gën a am représentant et puis les artistes sont plus nombreux bi ñu paree daanaka élection amatu fa parce que yi ci des yi seul candidat mooy voté pour lui et puis sànni mais loolu il doit y une répartition proportionnelle loolu ñu revoir dans les textes. bu boobaa les musiciens dañ mën a tax wax seen parce que li may wax nii je porte la voix de tous les artistes de la Petite Côte. Mm-hmm. maa ci gën tuuti mais am na ci ñoo xamante ni mënuñu ci dara. les associations de musique là defuñu dara parce que c'est pas de syndicat. Mm-hmm. affaire bi ñun ñoo ko moom ñun ñoo c'est le Sénégal la SODAV bi Sénégal yore et là je félicite le euh, le DG Bathily mi ngi def liggéey bu colossal dañ koy invité ba fu ne mu leen di montel seen SODAV. mais bu ñu yegsee fii am na d'autres travail ñun ñoo ko war a jàppale mais les autorités aussi doivent soutenir la SODAV puisque c'est la gendarmerie des artistes. des droits d'auteur donc du affaire de association wala benn lobby ñoo fa nekk di décider ku leen di décider quand on la ñuy renouveler ça c'est pas c'est toujours une même équipe qui dirige qui gère les affaires et c'est des milliards hein c'est des milliards répartition yi ni koy defee sax ba léegi y a pas quelque chose boo xam moi moi j'ai déposé des programmes mais ba léegi bu ma demee mënuñu ma wax ne ma bokkoo ci c'est de façon sélective ñan la ñan ñoo ci bénéficier wu te SODAV société de gestion commune ñoom il font les 16 pour cent lañ jël pour la SODAV mais li ci des la ñuy distribuer artistes yi là j'apprécie mais li ñu war a def mooy ñu gën a jox gëdd euh, artistes yi. Mm-hmm. moo gën am transparent parce que man su ma ñëwee chaque fois dana ma liste bi neewoo ci liste bi ne ma je patiente puisque compté wu ci loolu y a maa ngi def samay activités artistiques di def yenn mais li ci am solo ba am solo mooy CEDAW war na dépasser fii mais autorités yi dañ leen a bokk na ci li ngeen di kaas mooy statut de l'artiste. waaw non loi actuellement. à l'Assemblée nationale, on a voté une loi qui reconnaît euh, le métier d'art, d'artiste, de musicien comme, un, travailleur. parce que boobu dañ ko jàppoon ne kuy woy la ku bëgg a lekk samay mbayaan ñu jox la 1000 francs jox la non non ce n'est plus cela parce que fii lañ ko joxul gëdd mais en Europe dans les autres pays les artistes c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des mhm. parce que fonds yi ñuy am ñoom mën nañ ci créer entreprise. Mhm. et pourquoi pas y a combien d'artistes dans te on doit les organiser recherche d'emploi yi ñuy wax les gens ont les jeunes ont des talents mais nu ñu leen di defee or fexeen ñu dugg ci secteur formel bi ñu bañ a nekk ci informel. Mm. am ñoo xam ne amuñu sax carte SODAV. te xamuñu ne sax ñoom loolu seen élection la ñoom ñu dem nekk ci représentant am ñu leen fa représentant c'est comme à l'Assemblée nationale. donc su may wax benn état la ci biir état bi. mais carte Sodav bi dafa mel ni dafa am problème parce que à chaque fois même waa SYNACOPS demoon naa fi seen benn assemblée générale mais carte yi la ji déplorer à chaque fois lu tax carte yi méttee jot noonu. loolu man je me la question mais dupli ni ñuy defaree euh, carte yi bien vrai que mi nga am mais dafa war am fichier fichier boobu bu amee ñu xam ne y a tant collège musique. tant d' artistes littérature audiovisuel yooyu yëpp ba léegi mënuñ ci am exactement des chiffres peut-être ñoom dinañ ñu ko mën a jox mais quartier yi ñu déposé ñu bari am na fenn foo xamante ne les artistes ñoom ñoom taxaw laaj seen i carte le jour où on devait faire les élections il y avait beaucoup de yi ñu bàyyi à la SODAV. déposé nañ mais joxuñ leen man yóbbu naa ñaar ñoo xamante ne ci samay samay militant lañu sont de Mbour mais ñu ñëwee seen carte dañoo mujj obligé dem foofu biñ demee gisuñu fa seen carte. et ça c'est déplorable moi je pense que nu ñu ko digitaliser yooyu yëpp on pourra régler ces problèmes puisque la carte est, est authentique et là c'est une félicitation parce que bon bu njëkk ba ay carte ay carton mais léegi c'est des cartes numériques mhm. numérisées donc loolu c'est benn pas la parce que man je suis fier man ma ñëwee aéroport sax su ma boo ñëwee bu ñu laaj ndax ko wanee rek nga xam ne vraiment Sénégal organisé na woon ci plan boobu mais le travail reste. Mhm. à l'interne à il faut que ñu xool statut bi et ça c'est l'affaire du PCA du de de de et je lance un appel aux doyens ay Youssou Ndour ak euh, Baba Maal yooyu pour ñu seetaan aar bi fii puisque ñoom ku ne xam na leen au niveau international mais lii ñuy def nii on va on va tomber en bas puisque si on ne travaille pas pour que SODAV nekk une institution qui défend les droits d'auteur ba xam ak yelleef mais dañuy dépassé ay burkina yi dem nañ am na benn exemple mu lay jox la copie privée c'est un droit bu ñu war a jox gars yi war a joxe mais ba léegi nii le problème reste que ñu gars yi bañ ko fay te loolu suñ ko fayoon artiste bu feebar mën na ci jël en charge. tout à fait c'est des milliards. kon SODAV daal amul taxawaayam bi ko war. voilà artistes yi artistes yi taxawaay bi ñu war a taxaw taxawuñ ko sincèrement je le dis. artistes yi ñoo taxaw ñoo taxawul ni ñu war a taxawee. wala SODAV moo taxawul j'ai appelé des pour ñu ñëw voté ñu la ma non dama am xamuñu ne c'est un droit comme ni nga wax le droit de vote ni ñuy def ba voté le président beneen bi aussi y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de carte amuñu information te dañuy génn ay clip di def nii maay diw maay diw alors que yow sur le plan ci sa ba affilié wu nekk ci structure yi. sur le plan national te loolu le ministère de la culture moo war a def loolu. Mm-hmm. former et puis c'est des c'est des c'est des emplois puisque. dans artiste li mu mën a gérer comme entreprise puisque fonds yi muy am ci li muy am rek loolu rek mën na nekk loo xamante ne day gérer ay jeunes puisque actuellement à Mbour y a des jeunes qui s'organisent en association bu ñu def seen concert ñooy jaay seen ticket ñooy def lépp jënd ay ticket loolu yëpp c'est des activités yoo xamante ne c'est lucratif quand même mm-hmm. mais ça peut de servir à créer des emplois. mais est-ce que gëm ngeen ne yéen Ngoné mi nga xamante nii mu ngi ci quatrième mandat ci texte yooyu noonu la faloo dina euh, dina xalaat changer texte yooyu est-ce que du c'est un combat que vous devez mener. en fond en comble même bu fekkante ne sax nekkaan na à la tête euh, euh, de la SODAV mais quand même ngeen marqué la pression bu ko defee ñi war a jóg ci mbir mi jóg ci mbir mi. waaw man je la félicite mais ne pas bi ñuy def AG bi ci biir. <coughs> là je vais le dire. Mm-hmm. puisque j'étais maa ngi j'étais dans la salle. Mm-hmm. il y avait du bruit. il y avait des artistes doyens mais gis nga Sénégal loolu mooy Sénégal il faut ñu waxante dëgg. bu wax mm-hmm. dëgg jotee ñu waxante dëgg ñu leen lii la. ñu parce que moom moo jël parole bi ne donnez-leur la parole là j'apprécie mhm. vraiment c'est une grandeur parce que mënoon na toog bañ a def bon gars bi ñu xëccee am na ku jóg taxaw mu ne am na benn doyen xaw ma si yóbbulee sonn mais moo jóg ne man dama jàng droit. Mhm. mais nañu xool statut bi changé ko sinon mais mi ngi def caractère moom mënu ko arrêté dafa mel ne train saaraan di dem rek. Mhm. moom moo war a def. benn référendum soit mu digitaliser ko ñu def des questions nga xamante ni chaque artiste bu yore membre da ngay pour oui pour loi pour ñu changer ses textes. Mhm. et que lu continue loolu rek moo mën a tax te loolu moom ça dépend d'elle puisque actuellement ni ñu ko falee moom moo gën a am majorité au niveau euh, du PCA. Mhm. parce que elle a remporté si 30 xaw ma lan. 33 sur les 36 membres mhm. loolu kon donc moom am na prérogative yu def ko elle a elle a les de le faire. su ko deful elle va puisque les gens vont se révéler te nañ fa bañ a yegg. Mhm. elle doit tout suite travaux yi mu war a def fexe ñu xoolaat les statuts les points yi ñu war a changer mu discuter ko les artistes prononcé mu nekk comme référendum jarul nit ñi déplacé wu y a des conseils bu ne dem sa conseil ci remplir une fiche. Mhm. après ñu def dépouillement. ñu xam ne tel texte l'assemblée tous les artistes ont décidé que tel texte yi texte yi arrêt mandat bi c'est ans mhm. et que répartition des collège dañ koy def proportionnellement mhm. man loolu rek laay revendiquer mhm. beneen bi mooy euh, durée d'attente des répartitions dafa yàgg artiste warul toog ay deux ans doog a jot ces ces ces ces ces ces ces répartitions SODAV am nañ ay membres am nañ ay bureaux am nañ siège macha allah. mais le travail man da ngay déposer programme nga ñëw ñu laajal la naan la kañ nga déposer programme mel ni comme si benn affaire te je sais que déposé nañ ko damay garder copie. Mhm. fii y a une traçabilité numérique. donc am na loo xamante ne passivité la nañu liggéey artiste bu war a jot répartition normalement chaque mois même bu doon 100 francs sax ñu ne ah am nga 100 francs ci sa conte puisque boo demee ci plate digital euh, plateforme di loo am da da ciy fekk boo bëggee retiré bu agee benn somme nga mën ko retiré. Hmm. war nañ mën a yegg ci foofu mais ñu bañ a dox ci toujours ci méthode obsolète laa nga xamante vraiment puisque bi ñuy wax BSDA boobu temps boobu dépassé nañ ko. Hmm. Hmm. actuellement on est au troisième millénaire mën nañ dépassé fii seen bureau yi ils ont sont bien équipés parce que dem naa fa. donc war nañ mën a def liggéey boobu nga xam artiste bi en en trois mois war na mën a jot ay répartition mhm. mais di xaar ay un an presque deux ans. Mhm. man mii di wax ak yow ba léegi nii je suis dans l'attente mais yàkkamtiwuma mhm. parce que j'ai la patience toujours xam naa affaire ni muy demee du gaaw. c'est le travail boo xam ne quand j'ai je me suis rapproché du DG. chaque fois je lui pose des questions il m'apporte des clarifications concernant ces questions. mais li koy xaar mooy mu change texte yi. Mhm. moom mënu ko nag mais elle peut faire elle peut mobiliser des moyens ñu def ko par digitalisation bien artistes yi dem dans les conseils ñu def vote oui par non. d'accord ñu def ko loolu rek mhm. mooy kii bu ko defee va sortir par la grande porte. alors Lamp Fall euh, au-delà de de de de de l'élection de la SODAV bëgg nañ xam aussi euh, si ginnaaw artistes yi Lamp Fall kii kii kii Lamp. waaw Lamp Fall Kotiari c'est un artiste artiste mais. Euh, defuma art rek métier dama am métier je suis enseignant. Hmm, waaw je suis enseignant IP euh, je sers à Mbour dans l'IEF de Mbour 1. un vrai waaw parce que loolu sax moom laa gën a def parce que euh, j'ai commencé à écrire. man xaw ma woon ne sax parce que damay wax naan j'ai raté ma vocation. Mm. parce que je rêvais de devenir un footballeur ou bien un gendarme. Mm. mais dans la vie yow looy gën di dem rek. Mm. say say compétence di la gën a def. may dama gën dama bëgg dama mës a bëgg peinture. Mm-hmm. dama mës bëgg aar ba pare te mes textes yi yi mënum bind taalif yi ma daan def moo ma may. ma dem ma pourquoi pas ma xam ne artiste laa da ngay dem ba xam ne lii la la yàlla moo ne comme ni ngay nekk léegi nag ci laa commencé di ko def mais les messages que je lance c'est des messages que je tire des enseignements de Serigne Touba des écrits des xasaayid et des livres des saints waaw c'est pourquoi et pourquoi guitare bon moo may permettre ma mën a euh, matérialiser samay samay œuvre parce que tardivement sax je pas def naa musique théoriquement j'étais parmi les meilleurs élèves de mon professeur mm de mhm. musique mais pratique guitare pratique la du du théorie du théorie pratique la quand tu pratiques tu construis ta propre musique te man musique bi may def reggae mais reggae boo xam ne naan ko sàngara <laughs> mais man du bu tux du ma naan vraiment. pour des raisons de santé et pour des raisons spirituelles c'est des raisons religieuses. gars boo nee reggae rek dañuy foog ni eh tux ko yamba am na benn concert à Bourges je vais dama yëg rek ñu ne ah yéen a fi yëgal tux ko yamba naan ko sàngara alors que c'est pas ça. reggae ça fait partie des musiques les plus écoutées dans le monde actuellement. Mm-hmm. man j'y j'y génne naa ko ci e partout même en Espagne damay woy olof mais les espagnols ne ma I feel your sound donc j'ai vu que xam naa am na lu ma yor loo xam ne. bien sûr. Hmm, màggal incha allah ñëw man maay rendi xar yi. <laughs> damay lekk yàlla. jën dama koy lekk mais moom laa préféré le soir bu dee à partir de 18 heures je préfère mode ak ay tool bi ngay wax nii je le fais. puisqu'on sait que. Euh, nit mënta dund tal du lekk yàpp même damay lekk yàpp. mais philosophie reggae ñoom du lépp loo xam ne lii bakkan lay ñoom du ñu ko lekk. déedéet c'est pas la philosophie reggae. le reggae, c'est la musique. Mm -hmm. Le Rastafari, ça vient de Haïlé Sélassié. Oui. C'est le nom de Haïlé Sélassié. Mm Mais leur culture ne se trouve pas en Jamaïque, leur culture se trouve ici au Sénégal. Mhm. te man fi may wax verte jaune bi dina ko en collaboration la mais ça c'est notre culture fii la reggae jógee. dëgg la. naaya bi ngi when sa when rastaman chant Babylon chant mooy chant ci lañ jël seen tëng yi naaya bi ngi boobu di ko tëgg après la ci bom naa dugal guitare. mais man li may def yëpp importé ma ko man musuma dem jamee uh-huh. et j'ai fait de la musique reggae puisque The Lion of Judah mais symbole Sénégal c'est The Lion damay gis ressemblance yooyu ma no non c'est pas une ressemblance et plus pire encore tout récemment je viens de festival bu amoon dans les îles du Saloum à Niodior mais est-ce que xam nga Niodior bi ma fa duggee et je salue la population de Niodior suñuy déglu toute la petite côte c'est bon foofu moom c'est c'est très riche mm-hmm. yu bëgg seen bopp ils nous ont bien accueillis mais cocotier yi culture bi nu ñu bëggee seen ba nga xamante ne benn peuple lañu boo duggee dans ces peuples dans ces profondeurs du Sénégal la. Mm-hmm. je dirais parce que da ngay traverser kii bi. Mm-hmm. c' est à quelques kilomètres de de la Gambie. mais c' est des vrais races c' est des et ils parlent le sérère hospitalité bi boo ñëwee. mais ba ba may ñëw loolu rek rien que cela rek c' était tellement riche que mm-hmm. ñun am nañ culture. et je n' étais pas parti c' est comme si je suis me trouvais en Jamaïque. macha allah te fii lañ dëkk. Mm-hmm. nga yëg pirogue yi ñu wàcc. tojal la le Sénégal est tellement riche en culture hein? il faut en mm-hmm. profiter ah. seet culture bi moom. vraiment avec ces cocotiers feuilles yi de ci plage bi. cette belle population là ñëw nga xamante ne ñooñu dañu nekk ñoo xamante ne ñu fier lañu les ñoominka il faut les ñoom foofu ñëpp benn la booy laajte sax doo sonn boo génnee ni doon danaa la diw ñoom ñëpp benn la te loolu c'est des valeurs yu ñu war a teg Sénégal parce que actuellement si on ne fait pas pour quelque chose pour conserver ces valeurs là nga xamante bëgg nit bëgg sa cosaan nga xam ne ñëppay doon benn ñëppay yéenante ñëppay bokk benn ak déjà boo ñëwee li li ma doon gis foofu la maison qui nous a bool lañ tegalee ma ne lii de gëj naa ko gis. <laughs> chaque maison amène un plat. ci ci penc boobu waaw ci penc fi ngeen di dal. ñëpp indi bool bu ñu xamee ne tel rek na ñu indi bool. et c' est le bonus c' loo bëgg leen xam nga ak ñangeen yi moom fa lañ nekk waaye <laughs> boo fa dee mais ça c' est quelque chose de très beau dans notre valeur dans suñu valeur bay teral gan. Mhm. ba pare gan bi du ganu diw ñëpp benn bokk lépp. Mhm. te seen concert bo amul amul musique rek booy wax anglais bi sax ñoom dañuy apprécier. Mhm. loolu moom mooy c'est des c'est des peuples de moom mooy teranga sénégalaise ah en tout cas ñu euh, wax beaucoup de temps. Euh, Ndiakhé xanaa peut-être nga. texte yi muy yi muy bind di ko woy aussi ci ci ban cadre la koy waxee quoi parce que ku ci mel ni euh, Robert Nesta Marley. ñëpp xam ne moom <laughs> ab guerrier la woon quoi moom comme ni nga ko waxee rek. ni la woon koo xam ne ni moom danoon xeex pour der bu ñuul lu ko sigil. Mm-hmm. yow en tant que sénégalais bon di yëngatu ci war a lan mooy sa philosophie yow maanaam tey ci say say say taxi. ci fan ko basé wu. fi ma ko basé wu ci référence yi la. samay référence d'abord c'est le Coran. dans le Coran le rastafarisme mi ngi ci. puisque boo jëlee le rastafarisme fi mu jógee sa vient de la reine de Saba mooy Balxiis. Balxiis ku ne ku jàng alxuraan ku ne xam nga ko boo demee ci suuratul li am na benn saar bu ñuy wax euh, yaa ayoon Namli. ci lay wax rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta ala waliya man foofu laay trouvé sama la man topplu ma Bible man li ma fekk dama judd ba pare di dund ci biir famille parce que bon je de Maam Cheikh Ibrahima sama maam la maa ngi dëkk Risso di saluer toute la communauté mhm. euh, de mhm. nga xamante ne boo ñëwee ci côté xaali Amar Fall puis aussi sama maam la mais suñu famille man rek maa ci def musique ah. hmm. mais li ma yàlla nattoo mooy taalif la mais tuxuma naanuma damay jul damay def lépp ñu ne mais loolu loolu daf ma indi benn ressemblance mooy ñoom hmm. man maa leen gën a xam sax ñoom li ñu doon te y a une différence entre man ak Bob Marley puisque moom rasta la hmm. mais Haïlé Sélassié surtout yonentu yàlla euh, le le kii la Balxiis parce que Balxiis mooy le premier moom mooy doomu Ménélik mooy yaayu Ménélik Ménélik le premier euh, fils de de la reine de Saba. mais ci loolu. li ngay gis ne loolu yëpp man dama koy jàng di ko gis. dama ko daan jàng di ko réaliser mais bi ma dee ba gis similitude yi. d'accord laa ne non ça c'est quelque chose boo xam ne je peux exploiter cela et mieux expliquer cela. Mhm. puisque Haïlé Sélassié nu woon Rasta. c'était un chrétien orthodoxe. Mhm. donc ñoom am nañ contradiction man maa ko mën a lever. d'accord parce que j'y crois mhm. mais je peux lever cela. Mhm. étant sénégalais encore être fier de porter les couleurs vertes et rouges. ñoom mooy seen couleur ak noir bi. oui <laughs> oui on y reviendra malheureusement temps bi moom moo ñu xoj et il y a d'autres chroniques yi qui attendent. ça ça nous fera plaisir de ñëwaat ci ci plateau bi ah ñu ñu ñu xamaat découvrir encore. ki nga xam ne moom moo di Lamp Fall c'est c'est magnifique en tout cas. et puis euh, gis nañ ne xam-xam bi bari na. mais euh, lépp tamit daanaka. xanaa li xale naa ma ma la benn texte. Ah, ah, xam naa il de texte. ils étaient sept dans la caverne refusant d'être si malter à un terrible roi tyran, despotique et mécréant. Même leurs siens compagnons fidèles, au nom de Dieu, étaient parmi les rebelles, derrière eux, quittant leurs biens. Dans ce monde, ils n'ont plus rien. Leur sommeil de ans fut témoin de tous les temps. Yamlihan, مسلينا مرنوس دا مرنوس سازنوس كفستات يوس خدمير This is the story of the servant sleeper During 309 years, they were alive in the cavern. Rabbana, آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا min amrina rasadan ça ça fait partie d'un de mes morceaux que j'ai j'ai j'ai euh, The Sleep of the Cavern et c'est une histoire des jeunes et je lance ça pour les jeunesses pour euh, pour tout le monde et je dis je vous donne rendez-vous peut-être la prochaine fois mm. mais en tout cas le message que je voulais lancer c'est pour euh, Ngoni nur je la félicite mhm. et pour la SODAV et le ministère de la jeunesse sport culture si on peut changer et essayer de détacher gérer la culture ça ce serait vraiment quelque chose un pas en avant encore pour la musique voilà oui noonu en tout cas euh, am na solo <laughs> c'était un plaisir de de vous recevoir ci plateau bi. kontaan nañ trop euh, Lamp Fall. xam naa ne très bientôt di nga ñëwaat. parce que bëgg nañ quand même découvrir guitare bi lu ci nekk. bon li ci nekk. du euh, xanaa ma ma may leen morceau bi ma defaroon pour les lions du Sénégal waaw pour le pays avec cette nouvelle ère d'un nouveau président jeune ñu yéen jàmm Sénégal jëm ca kanam. parce que on a reçu une bénédiction. kalga ngi romi gaa ngi romi ëllëg suba teel dañuy dem Sénégal keroog bu ëllëgi ba jam ñëpp a teewee Basiru yi Bambaay capitaine bi kay joo kalga ngi romi kalga ngi romi ëllëg suba teel dañuy dem Sénégal keroog bu ëllëgi ba jam ñëpp a teewee Basiru by the grace of our prophets that history never forget King Solomon got a kingdom where he leaded in wisdom. His supernatural power was following a Syrian flower. Ben obeyed to him. Benenji angel told to him, gaal gaa ngi rombi gaal gaa ngi rombi ëllëg suma teel dañuy dem Sénégal keroog bu ëllëgi ba jàmm ñëpp a teewe Basiroy Bambay capitaine bi kay jox je voudrais la prochaine fois. bii moom macha mais bii moom da ko war a guitare palais ba moom. <laughs> mais bien sûr si j'ai le si su ma amee audience je profite de l'occasion pour pour way pour me demander à son excellence de me donner mais bien sûr mais <laughs> xam naa ne que il va <laughs> aimer il va aimer ce genre de musique. parce moom boo ko xamee rek xam ne que ku téye la ku dal la xam nga. guitare aussi c'est apaisant. man la l'élection de Bassirou Diomaye Faye c'est une bénédiction pour le Sénégal. macha allah et sëñ Mountakha dama ko gëm bëgg ko. Mhm. et il a beaucoup fait pour la paix au Sénégal. te son père c'est le c'est le meilleur moom turando papam la. Mhm. donc Bassirou je vous souhaite. son excellence vraiment Sénégal meilleur et que mhm. vraiment qu'on soit. dans dans les pays de l' waaw. high level high level <laughs> en tout cas merci. je euh, <laughs> bien sûr. di nga dem palais. fii la fii lay canot bu baax bi ah. voilà très bien mu ngi lay mu ngi lay dégg et je vous félicite aussi Walfadjri. Mm-hmm. je sais que euh, yéen moom seen ngor da ngeen am ngor da ngeen a baax. Mm-hmm. puisque man maa ngi rappelé wu. Mm-hmm. vous êtes là pour le peuple mais pour le continent vous êtes là pour tout tout monde. yàlla na leen yàlla defal. amiin ngeen dem yéenay number one sax pour man. amiin puisque quand ma xoolee dama xool ma ne. Et puis moi, je, mon nom, mon nom c'est ay mhm. mhm. ah, Sidi Lamine. Sidi Lamine yal na ko yàlla yokk leer fa mu ne. Mhm. yal na ko suñu borom gën a jéggal. te yokk leen yéen ñi fi bàyyi. te lim fi bàyyi yal na mel ni samp suñu borom bu dëgg na dëgër. loolu daal laay ñaan. di leen ko ñaanal. di leen remercier. di saluer tous mes parents ñi may gis ci télé bi yëpp. wax ne vraiment euh, yal na Sénégal jël te yàlla yal na jàmm sax ci Sénégal. mu ngi doon Lamp Fall euh, artiste mais du neex du day vraiment neex na trop ah. te tey jii découvrir nañu encore beneen facette. Mhm. bu bu bu bu artiste Lamp Fall la woon tey jaajëfal ko bu baax a baax di fàttali ne moom bokkoon sax ci candidat ci élection yu mujj yi ci SODAV. Mhm. mais euh, malheureusement xam naa ne yeneen ñëwaat incha allah en force. incha allah bu ñu soppee règlement yi ko defee nga ñëw dugg pourquoi pas njëkk yow tam sujet bi amoon na solo trop. incha allah di la merci beaucoup Aïcha di la jaajëfal di jaajëfal mboolem téléspectateurs yi ñu doon seetaan. Mhm. mercredi prochain incha allah ñu dellu si waat ak beneen thème. mu ngi noonu en tout cas a la bu baax a baax Ndiakhou Mbaye léegi léegi sans plus tarder dañuy dem jëli ji euh, l'invité actu.